كتاب ستانتر القرآن الكريم لا تخم جنة ستانتر القرآن يالا نيكو ديجل نا كبير ستانتر جا لاني مانا امي اي خم خم يو ياتو تبري خم نيو كبير القرآن الكريم رمبينا كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر كل الألباب. يقول لك بو ليدبروا آياته ngir ñuy settantal ay way wali wala zakara ulul alba ngir mu fatlé ko ko waru xel yi loolu moo tax suñu jotaay yi mbokk yi ñu duppee ko jotaay yi settantal al quraan karim ñu ngi nekkoon ak yeen ci dinkaan yi nga xamantene luqman do na ko mu nekk ay dinkaan yoo xam ne kuy yare képp kuy yare war ngaa jël ndénkaan yooyee def ko muy sa yoon bi ngay yare ndax ay ndénkaan la yoo xam ne boo ci jël rek mat na sëkk ab yóbbal te it ko tegalee daanaka noonu la war a tego ndax li njëkkoon a jàngale mooy wéetal yàlla tawxiid nga xam ne bokkaale yàlla moo gën a bon ci kaw suuf jàngale loolee ginnaaw loolu borom xam-xam yi comme ni ñu ko waxee borom bi tekki ay wax yu boppam ginnaaw si mu ñëwaat ci ndénkaan la ndénkaan loolu mu ñëwaat nag ci lañ ñëwaat tey incha mooy fi ne yaa bunayya innaha in taku misqaala xabatin min xardal fa takun fi saxratin aw fi samaawaati aw fi l ardi yati biha allah inna allaha latifun xabir laaya bi ndénkaan lii nii li muy dénk doomam moom Luqmaan ci gàttal waa waajur wu nekk di ko war di dénki doomam waaye di ko war di doxee ci doomam mooy muraqabatullahi taala muraqabatullahi taala mooy di bàyyi xel yàlla ak foo mën a nekk foo mën a nekk ngay bàyyi xel borom bi azza wa jalla nee nañ nee nañu euh, laay bi ni maanaam li tax Loqmaan wax ko dénk ko doomam doomam da koo laajoon ne ko waaw man bu ma defee ak mooy fekk man dongu maa nekk ndax yàlla dana ko xam Loqmaan di ko dénk doomam ne ko yaa bunayya yow sama si noom innaha am na ñu ne mooy histoire bi day aha yàllaa xam in taku bu nekkee moom mooy ga ci yenn yi مثقال حبة نتولي آه، أو فبو من خردل نجي خردل خردل نين لو تود لا لو خامن مونيسكو مان لا خي صاح ني نان فبو سان غوفو لام غن كو تودي صاح من خردل فتكون في صخرة مو نيك تي أو دوج دوج وو خامن مو خام في السماوات أو في الأرض مو خام تي كو سوف نيك مو خام كي كو أسمان fu mu mën a làqatu nanga xam ne borom bi subhaanahu wa taala ëllëg yowmal qiyaama buy régler jëfi jaam ba dana ko indi yati biha allah borom bi dana ko indi ndax ñaari tur yi yi nga xamante ne borom bi da ko làmboo moo tax lu waay jëf lu mu ruqe ruqe lu mu làqu làqu borom bi subhaanahu wa taala yàlla de latif mooy ku euh, xereñ la ku sew xam-xam la ku sew xam-xam la ku ñeewantu la waaye xabiir ku dañ kumpale ci lépp amul daara loo xam ne borom bi subhanahu wa taala ump na ko lépp dafa mel ni ci moom kanayaan mooy lu mu jàmma lépp dafa mel ni moom lu mu jàkkaarloo rek kon yow jullit bi yow bi nga xamante ne yaay yar sa njaboot nang leen yar ci ñu bàyyi xel ne lu waay def دوم من نكو سيقل واي رب العزة والجبروت نكو سيقل موي بروم سبحانه وتعالى هي لا موم نكو سيقل سا ليب لا خام وخوما لا لي جيفني واي لي غاي امب سي سب خول سا خام نكو نيت كي دافا ورا دي مو مو يسكر لهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يعني وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول آه. يلا مني عندك نو بني فانا لو خمنه بروم سبحانه وتعالى غرمكو تي اي وقت كون نغا باي خيل ني وما ربك بغافل عما تعمل بروم سبحانه وتعالى سدني ليغي ندي waaye moom ñuy gis fu mu ma yow mi yar sax njaboot nga yar leen ci loole yar leen ñu bàyyi xel yàlla ñoom doom bu ñu nekkoon ci barab sax ñu xam ne yàlla mu ngeen gis ak maam bu ñu ñemee mukk def ak bàkkaar ak lu ñu wéet wéet bu ñu def ak nañu xam ne yàlla moo leen di gis ak fu ñu mën nekk loolee Luqmaan doon yar doomam di ko ko dénk mu nekk ndénkaan loo xam ne kenn ku nekk di ko war di dénk doomam mais bàyyi xel yàlla beneen ba it mooy mu bàyyi xel sew rek lekk ëllëg yowmal qiyaama mooy maanaam yowmal qiyaama rag lu gim rag lu waaye def ci mi lu mu tuuti tuuti borom bi dina ko gaara ëllëg yowmal qiyaama loolu it ak soññee la koo xam ne it moo koy soññaat doomam ci li ñu mën a bàllaloo mu góorgóorlu ci jëf ak mbaax ah wattandiku sawara ak nu mu tuuti tuuti waaye moytu ay bakkaar xam ne bàkkaar bi moom tuuti tuuti borom bi subhanahu wa taala dina ko indi ëllëg yawmal qiyaama beneen bi nañu bàyyi xel tur yàlla yi tur yàlla yi daanaka chaque jour tur ya muy tijjee aaya ba day am rapport lool ak lañ lañ doon wax ci biir inna allaha latifun xabir boroom xam-xam yi islaam yi dañoo balal ne borom bi bu tëjee ñaari tuuram ci benn aaya loolu day dolli mbir ñu taar day da koy dolli ak taar borom bi nee na inna allaha latif xabiir latifun xabiir nañ bàyyi xel loolu baax ndénkaan la boo xam ne kon ci la ñuy taxawlu tey mu ñu jàngal ñu bàyyi xel yàlla ak fu ñu mën a toll di bàyyi xel yàlla xam ne lu waaye def ak lu mu tuuti tuuti ëllëg yawmal qiyaama yàlla dina ko indi ndax balance nag nañ bàyyi xel wa nadaul mawaazina al qista li yawmi al qiyaama balance تيك لين بروم سبحانه وتعالى تك كان كون نيك لا غاي جيفون رك لا لا لا ايمي اها حديث يوند بي صاحب يا يا عبادي في حديث القدسي يا عبادي ين سما جاء انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه yéen sama jaam yi seen jëf yi day den leen koy takkal mattalal leen ko ëllëg yawmal qiyaama gaaral leen ko ku fekk aw yiw na sant yàlla ku fekk lu dul aw yiw bu mu yedd ku dul boppam na xam ne moo ko def na xam moo ko def moo tax réglé gu sew googee mu ne mooy kàccoree ëllëg yawmal qiyaama dañuy waaru danaan maa li haadal kitaab yaa waylatanaa maa li haadal kitaab waa téere bi moom la yugaadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha du bàyyi lu ndaw du bàyyi lu rëy lu dul fekk na ko wa wajadu maa amilu xaadira wala yadlimu rabbuka ahada lépp luñ mës a def rek dañuy fekk mu gaar nekk ñëw borom bi du toon kenn ci aaya ba nekk suratu ali imran borom bi nag yawma tajidu kullu nafsin maa amilat min xayrin muhdara borom bi yàlla nee na bakkan bu nek day fek lam jëfoon ñu teewalal ko ko wa ma amilat min suwin tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan baida bu fekke aw ay lamam da danaan wuy yaay manam da daal dal wuy ak neexon sama jëf ju bon gi ni sori ma lol da fek ya ko def fek ya ko def kon yàlla ñu yàlla defal deg ak top yàlla ñu yàlla defal deg ak top ñu baye xel règle ga te nañ bàyyi xel yàlla fu ñu mën a nekk xel yàlla lu ñuy def nañ bàyyi xel yàlla xam bu yow dong boo nekkoon ci néeg sax ak suñu joll si yi nga xam ne xew suñu jamono jii mooy portable yi daanaka lu neen ci biir waaye na ngay bàyyi xel ak nu mu ruqurati nga bàyyi xel wa maa takunu fi sha'nin wa maa tatlu minhu min qur'aanin wala taamaluuna min amalin illa kunna alaykum shuhuda borom bi ne lu amul lenn lu ngeen di def lu dul ne ñun ñoo ñoo ñoo ngi teewe kon yàlla yàlla defal ak sellal yàlla yàlla nangu suñu jëf yi yàlla yàlla jéggal suñu bakkaar yi wa sallallahu taala wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain